ma lay nuyu bu baax di la siyaar tey ñu àdduna ki nga xamante ne mooy Père Balla Gaye di jëye yi ñëpp di métti lu lii waaye yàlla moom bu soxlaa nit soxla kenn mënu si dara ndax ginnaaw moom lañu yaakaar lu mu def la dañ koy sant suñu suñu borom ndax maam Thierno Birame daan ne waaw diw de gën naa de mu ne alhamdulilah am na doom mu ne waaw sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal Balla di ko ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko yàlla xale àjjana firdawsi si barke sama grand la sama waay la lu ma masal jàpp jàpp si fu mu tase dama may conseiller bi école yi boo ñaa dama déggool formel école ba yàlla dogal ma formel école kon boog mënuma ko fay maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana fekk fa ay mbagam ñoom daaw na faal tubaabu joor waaw alsan jaxate mbër yëpp génn àdduna yëpp ñoom booy ñoom ñëpp yàlla yërëm leen jéggal leen seen bàkkaar si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi di jaale waalo di jaale écurie waalo di jaale tamit waalo waalo yëpp ñu ngi jaale ñëpp si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi di sigal di gaale mbër yëpp ak ak lu làmb waaw di jaale ministre yàlla na eh, yàlla na ko yàlla na ko yàlla xare àjjana firdaws barke Seydina Mohamed ñu ngi jaale ministre des sports daal di jaale axlu làmb yëpp di jaale président de la république moom mi nga xam ne tamit jàppoon na ci waaw ñu ngi koy ñu ngi leen di jaale ñoom ñëpp di jaale kilifa diine yi laayeen yi yëpp ñu ngi leen di jaale jërëjëf jërëjëf jërëjëf